man la président Pambay président des Mariés de Mboro. ñu jotaay bi li ko waral mooy euh, jaraaf dafa wax président loo xam ne presque daf ko wax rek mais daf ko wax ci bànneexu bakkanam parce que ñun Mboro ñun filo dormant lañ xam filet yi muy wax nii ne da koy tere day yàq géej loolu amul parce que suñu maam yi ba tey moom la ñuy liggéey ñun maréer yi nii ci la tedd kon su taxawee mu ne dafay yàq géej loolu dafay wax lu xamul wala boog dafa wax li ko neex kon may wax ne président maa ngi lay lancer message ne jaraaf li mu wax nii dafa lay nax parce que bu doon dëgg la dina ko waxee nee nul noonu dafa am ñoo xam ne ne ñi ne secteur bi maanaam dañ dul def l'homme qu'il faut à la place qu'il faut maanaam ñi nga xamante ni ñoo ne ci bi xam ni secteur bi doxee xam ni mariage yi doxee duñ leen jox kàddu pour ñu wax wala ñu xool ñi nga xamante ñoom ay mool nga xam ne ba ca maam ba tey ay mool lañ ñu xam réalité yëpp duñ leen jox kàddu ñu wax mais dañuy jël ñi nga xamante ni xamuñu dara xamuñu ci affaire géej dara d'accord jaraaf la jaraaf na resté place jaraaf bàyyi ñi nga xamante ni ñooy yor ci wàllu pes ñu wax li ñu war a wax ci pes bi parce que bu nee mbaal filet dormant yi dafay yàq géej loolu waxul naka sa xandang nekkul wax boo xamante ni wax bu dëggu la bi ci des mooy ñu ngi remercier bu baax président Macky Sall parce que lu tax ñu koy remercier mooy depuis trois ans quai de pêche mi ngi taxawoon arrêté travaux yëpp taxaw mais alhamdulilah ki démb lancé nañ waat ñëw waxaat nañu ne dinañ continuer liggéey bi ba ñu ngi gas forage nii tey pour continuer liggéey bi kon loolu ñu ngi ko ciy remercier bu baax a baax di ñaan nag yàlla suñu borom euh, suñu ministre bi nga xamante ni mooy Pape Sagna mbay moom nga xam ne mooy ministre beex bi nga xam ne moom lañ teg suñu kanam yàlla jàppale ñu jàppale ko ba mu ñëw inaugurer ñu quai bi ci délai bi mu ñu wax nañ ñu dimbali leero soli ñëw inaugurer ñu quai bi parce que conditions yi ñu liggéeyee ni gis ngeen ko gis ngeen fi ñu liggéeyee ni xet bi mi ngi ñuy bëgg a rey camions yi fi ñu taxaw xajuñu fi te aussi tamit suñu quai bi wax nañ ko quai bi ñu dañu defal dafa ndaw dafa ndaw parce que boo xoolee camions yi taxaw fii xaj ñu si biir quai bi ñuy ñaan li laay war a soli côté quai ba la ci kaw ñu yokkal ñu fa beneen mbaar bu mag boo xamante ni au moins jigéen ñi nga xam ne ñoo yor seen dàmbay di liggéey ñu mën a xaj foofu parce que quai bi oto ak jigéen ñi ak ñun mareyeurs yi xajuñu fi parce que boo xoolee kew lañ ko def loolu daal moo nekkoon suñu suñu suñu jooy Mboro 80 pour cent si liggéeyu jën bi usine lay dem Philodorma yi muy wax nii vraiment li muy jàpp si jën li ñu ko yóbbu usine vraiment amul ci beneen tefes loolu dañ koy wax ci kaw. kon su ne dafay yàq géej moom jaraaf dafa wax loo xamante ni peut-être daf ko waxee ci bànneexu bakkanam kon ñu ngi sant bu baax président Macky saal di ko wax ne mu diglu acteurs yi parce que ñoom ñoo xam li xew ci terrain bi li Olof Ndiaye di wax ne xaw ma mbottu moom mooy nuuru parce que moom moo xam li ci ban ba. fii loolu joué na ci parce que bato yi ni ñuy def fii jaaduwul xamul tax jaaduwul parce que ñun ñi nga xam ne ñooy mareyeur ñu ñoo njëkk am problème problème bi ñu am mooy dañuy financer suñu mool yi presque ay millions mais day dem cinq minutes bu ñëwee ne la matériel bi dem naa géej mais fekkuma ko fa. loolu ñun dañuy am problème fi ci ay problème yu métti lañ am na ci mareyeur yoo xamante ni fi may waxee yow nii ñu ngi dem ci yoon parce que lu tax ñu ngi dem ci yoon mooy dañ jël xaalisu banque. investir ko ci mool yi ñu soob ko géej cinq minutes dix minutes ñu ñëw ne la matériel bi dem naa xool naa ko mais gisuma ko lu ko waral mooy bato yi ñoo ko buub ñoo koy dagg sànni condition yu leen neexee suñu mool yi fii souvent dañuy ànd ak am problème ci biir géej gi ndox mu tàng sax dañ leen koy tuur parce que da ngay ñëw talal ko ne ko fii suñu matériel moo fi nekk dawal ba ne la ci kaw nga sóob parce que bàyyi suñu matériel mais du du leen sax faale ndox mu tàng la ñuy jël di ko sotti ba ay histoire yu bëri day am ci géej gi te loolu président war na ko mën a régler mu jël boto yi pousse ko ba ci kaw. parce que ay jamono danga nga daan daw un kilomètre am jën un kilomètre nga daan daw am jën mooy gaalu looce bi léegi da ngay def six kilomètres ba sept kilomètres ba huit kilomètres doo ko am jën kon bato yi fekkee dañ leen joxoon fi ñuy yem. nañ ko yokkaat puusaat ko ñu dem ba ca kaw su ko defee ñun suñu gaal yi mën a dem mën a am dara loolu mooy wax ji. waa man la soxna Oumy Nguer soxna Oumy ma madame Mbacké di nekk. Euh, waaye ñuy suppali jën bi fii ci Mboro xanaa ñuy lancé appel rek suñu président Macky Sall mu jàppale leen muy sama yaay yi ak suñu tante yi ndax bi ñu Mboro nekkee mbooro ba léegi nii ñoom dañuy dégg site yu baax yi ñuy defar te Mboro mosu cee am ba tey sama ñoom yaay ci euh, euh, mbaaru tuuj bu ñuy defar bant moom la ñuy liggéeyee te loolu foog naa ne Sénégal ba mu daj amatul benn site boo xamante ne si ñu ngi fay liggéey jën muy liggéey ci anam bu mel nii. déedéet setul ba pare tegul ci ay normes yi nga xam ne ci la ñu war a liggéey lu ñuy lekk dafa guddi mais bu guddiwul woon dañuy dem wan la lépp pour nga gis ko mais instant bi ngeen ñëw moo guddi mënuñu fa dem pour ñu wan la ko. waaw yu baax comme yu ñuy yóbbu faas booy di ko yóbbu Kayar di ko yóbbu Suwal ak feneen foo dem ci tefes rek mais Mboro ba tey musul bokk waaw loolu mu nekk loo xamante ni si lu doy waar la beneen bi tey dolli ko tamit damay ñëw ci li nga xam ne mooy wàllu géej gi en tant que mool en tant que mareyeur ñu gis ci mbooroo nappin boo xamante ne si bu doy waar la ñu di ko lancé appel suñu président Macky Sall di ko wax ne mu dimbali doomu Mboro parce que sonn nañ parce que li leen tax a sonn mooy ñoom dañu demul clandestin jaayuñu dorog jaayuñu yàmba dañuy liggéey di daan seen doole mais chaque jour bu ñu teeree dañuy indiwaale njàmbat lu méttee métti njàmbat bi lan moo ko waral mooy suñu moroom yi nga xam ne dañuy napp ñu leen di wax ay bato ñooñu bëgg nañu yóbbu leen li li ñu waxoon ne dañ leen yóbbu ba 10 000 maa foog naa loolu ku ne déggoon na ne dañ ko wax loolu bëgg nañu ñu jàppale ci ndax ñun amuñu lu dul géej la dormant bi nga xam ne tamit euh, jaraaf bu sumbu jum da ci doon wax loolu ñun waa Mboro yëpp ñu ngi koy ñaawlu di ko naxarlu parce que nekkul loo xam ne neex na ñun ndax ñun amuñu lu dul mbaalu fi la dormant suñu papa ak suñu yaay yi moom lañ doon liggéeyee suñu rakk yi moom la ñuy liggéey ak suñu ay doom kon bu jaraaf bi taxawee ci kanamu président di ko xamal ni mbaal yooyu baaxul ñun décembre ñuy lor ndax amuñu lu ko gën kon ñuy xamal président ni ko ñoom moom lim ni baaxul kenn sant ko kenn waxu ko ko ni baaxul ndax ñun moom lañ am moom lañ xam moom la ñuy liggéeyee kon ñu ngi koy ñaan mu jàppale ñu ci. beneen bi ma say doole mooy dañu gis boo demee Mbour ñu ni président dafa yóbbu ay ndaa ministre bi alindooy Ndoye ànd nañ ak moom mu dem yóbbu ko fa àndaan nañ gis mu dem yóbbu ko suwaal ñu ne nag ndaa yooyu mboora xëy na moom mënul am ndaa waaye war ñu def beneen moyen boo xam ne war nañ leen mën a jàppale ci po yi nga xam ne moom la ñuy nappee te po yi ñu ngi koy defaree Sénégal gii mooy yi ñu jàppee yaranka comme état day dimbalee rek foog naa ne mboora dara gënu koo war ci dimbalee parce que ñu sonna fi nekk ay ndaw fi nekk yu daan seen doole te seen man-man amul solo kon ñu ngi yóbbante yóbbante boo xam ne dañu bëgg mu àgg suñu président àgg ci suñu ministre ñu di ko ñaanal di ko dalal jàmm di ko wax ne doomu Mboro ñu ngi lay tàllal loxo nga jàppale leen dimbali leen ci fi nga xam ni instant bi fi lañ toll metti na trop ñu ngi jégalu ñëpp di nuyu waa Mboro yëpp nag bàyyiwuñu kenn.